أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi mbokk taalibe yi fi ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mooy di leen ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla bu buur yàlla subhanahu wa taala di dañ di ko sëmbartal seen kaw di ko sëmbartal seen kaw njaboot kazalika di ko sëmbartal ci kaw képp ku naan ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amin ya rabbal alamin ñu ngi jaajëfal ñaanal ak ñun àllarba bi weesu ñu doon waxtaanee ci jikko bi nga xam ne moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne moom mooy jikkoy lislaam muy kersa ñu ngi ñaan yàlla mu yokk ñu ko ñun ñi koy waxtaanee ak yéen ñi koy dégg fépp fu ngeen mën a nekk di jaajëfal ñi àndoon ak ñun ñëpp ak ñi nga xam ne yëkkati nañ seen téléphone ñi envoyé ñu ay message ci internet bi ñu leen di jaajëfal bu baax tey nag ñu war a waxtaanee mbir moo xam ne man dama naan jamono ji amul luñ koy gam-gam leen dama naan jamono ji amul lenn loo xamante ni bi dina jaadu ñu waxtaanee ko walis moom bu ñu duggee ci biir waxtaan wi di ngeen xam lan moo tax solos wax ji nga xamante ne bii wax naa ko ak lan laa lay taayalee wax jooju ñi nga ànd ak kenn di sunu xarit di sunu soppe di sunu wóllëre kazalika mu nekk koo xam ne dañ ko dee ndamoo ci sunu lislaam fii ci Sénégal rawatina mu doon sama turandoo kon fa tabarakallahu loolu lépp tawfiq ilahiya la muy ustaaz sayut lii nekk wootekat nekk sëñ daara nekk jàngalekat nekk yarkat itam ndax képp ku koy topp foo ko mën a toppee di nga xam ne saa yoo toogee ak moom di nga defaraat sa toogaay saa yoo toogee ak moom di nga am loo xam ne boo fa jógee ña nga doon waxtaanal di nga leen yokk ndax yàlla dogal na di nga fa jëlee lu yees kon du ñu def du dul di ko ñaanal allah subhanahu wa taala mu dolli ko tawfiq dellu ko taysiir muccal ko ci woru muccal ko ci wore muccal ko itam ci woraate yal na ko ci yàlla muccal muccal mboolem jullit ci mbir moomu oustaz sayid li waa Bichri TV ñu ngi lay nuyu naan la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi leen di ziyaara di leen baalu ax di ñaan yàlla tabaraka wa taala barab bi yal na ko yàlla barkeel na fi yàlla sotti waa may xéewal ak ñi fi nekk di yëngatu yàlla sàmm leen yokk seen mën-mën ak seen kattan maa ngi lay ziare bu baax baax jërëjëf barakallahu fiik alhamdulilah moom mooy ustaz sayid li amaana ñenn ñi rek lañ koy xamal waaye ñeneen ñëpp xanaa nammantiku ak moom rek mooy am waaye yàlla dogal na xol yi gise nañ bu yàgg ba ñuy jokkaloo ci liggéeyu lislaam bi ci bépp xeetu liggéey ak ci bépp xeetu fànn ñu war a waxtaane nag lu jar a waxtaane waxtaane loo xam ne saa su ne dafa yell waaye rawatane jamono bii ñu nekk la gën a yell waxtaane mbir moo xam ne ñu bari xamuñu lan la te dëgg mën nañ ko fas yéene ci def lépp loo xam ne am nañ ko ci alal am nañ ko ci xalaat am na ko ci ay pexe ñenn ñi dinañ ci dem ba dugg ci loo xamante ni bi amaana mun na indi gàkk-gàkk ci mbir moomu nga xam ne dugg nañ ci muy jullit bi lan ma war a nekk taxawaayam ak feetu ñu dul jullit te defe naa loolu bu ñu ko waxtaanee oustaz ci décembre. yàlla na wala yàlla lu yàlla la lu jaadu la.
jaadu la. kon mbokk yi loolu la ñu bëgg a waxtaanee incha allahu rabbi di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala oustaz Sayid mu gën a ubbi làmmiñam feccil ko dënnam yaatalal ko xelam ba lépp lu mu am yéene sotti ko fi mu doon ci sotti win yu gën a sell bu gën a laab oustaz lan mooy feet ci lislaam balaa ñuy dugg ci feet yi ñeneen ñu dul jullit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur boroom nuy ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi lay ziyaare di ziyaare mbokki jullit yi ñu fi fekk di ñaan yàlla tabaraka wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu feet ci lislaam mooy al iidu tarkul maasi
al iidu tarkul maasi feet mooy bàyyi mooy yàlla na feet sant yàlla la sallallahu alayhi wa sallam dafa bàyyi ko Médine Makka dugg Médine mu fekk waa Médine di feetu yahuud yi di feetu mu ne leen lu tax ngeen di feetu nii ñu ne ko dañuy sant yàlla ko dañuy sant yàlla mu ne leen lu xew ñu ne ko danoo àndoon ak sunub yonent bu tudd Muusa alayhi salaam yàlla tabaraka wa taala rëcculoo ñu ñun banu Israil ca de géej ga la yàlla labal sunu noon bis boobu saa yu delsee danay sant yàlla kon ndeke feet sant yàlla la waaye ana ban feet mooy sant yàlla loolu mooy wax bi ndax ñun jullit yi ci àddina bi nu nekk lu jóg rek dafa war a nekk ci ñun feet ndax ku nu woo ci feetam rek war nanoo wuyu ndax lépp lu nit ñi def rek ñun war nañ ko def kon feet ci islaam laysa al iid bi lubsil jadid wa innama al iid liman yacmalu ala taati rabbi feet du sol yére bu bees gis nga nit ñi tey ci nax guñ leen nax mooy feer rek nga daw marché jënd dàll jënd yére jënd max ne jënd bu dee jigéen nga ñawlu suñ la nee lan la nga ne damay feetu fekk feet du loolu feet mooy nga def li la sàll yàlla sant mooy nga jaamu sa borom tabaraka wa taala imaam ali day wax ne bis bu ma jaamoo yàlla bis boobu ci man feet la bis bu ma mooy yàlla nag bis boobu moom musiba la kon loolu mooy feet
kon bu ñu déggee sa wax mooy ne feet li koy yëkkati mooy sant xéwal goo xam ne yàlla sunu borom subhanahu wa taala daf la ko defal nga sant ko ci delloo ko njukkal ne ko budul woon yow xewel gi wala budul woon yow ñun waa banu israil ñu mucc ci noonu yàlla boobu di firawna wax ne fi nga tënkee Seydina Ali karrama la wajhahu moom mi nga xam ne daara ja moom nga ko duppee nee na bés bi nga xam ne yàlla yombalal na ko ci mu jaamu ci yàlla topp ci allah subhanahu wa taala moytu bépp xeetu mooy yàlla nee na bés boobu feet la fa tabarakallahu oustaz ñu gis ne bu janvier bu décembre jotee rek ñëpp ñooy commencé tali yi gis nga peinture nañ ko ut nañu ay lamp ñu daal di koy teg ci kaw tali yi autorité yi ñi ngi koy décorer ay fleur bu dul fleuru jinne mi ngi wër ci réew mi xeetu fowukaay yu ne ay pistolet ay doomu tubaab ak yu ni demee yépp mi ngi lëmbee réew mi ngir dafa am feet boo xam ne almasihu yuun yi ñoom dañ koy feete muy 24 ba 31 décembre ñun nag 24 le 25 le 31 ba le premier dañuy feetu feet yooyu oustaz feet yooyu lan moo yëkkati feet yooyu.
alhamdulilah damay faral di wax ci njàngale yi feet bi ñuy feetu kuñ ko waxoon sabaay doo feetu feet bi ñuy feetu ni décembre kuñ ko waxoon sabaay wala ñu wax ko sa kilifa diine doo feetu yàlla dafa jékki-jékki mu ne ndax weer wi ni moo gën a ñàng moo gën a bon daanaka ci weer yi
weer décembre bi waaw lu tax ndax ci lañ saaga yàlla
saaga yàlla waaw yàlla dafa toog ba càgg mu ne doomu aadama saaga na ma sotama ni ibnu aadam te wa ma yambagi lahu an yastuma ni doomu aadama saaga na ma allahu akbar te doomu aadama day wax dëgg yàlla yellul ci moom mu may saaga ñu ne ko yàlla ban saaga la la saaga mu ne doomu aadama nee na dama am doom te aw ma jabar aw ma soxna man yàlla ñu ne ma dama am doom xoolal tey kilifa guñ fekk nga toog ñu ne ko yow de da ngay ngénte fële te amoo fa jabar luñ ko wax
ah waaw loolu kay saaga la daanaka loolu la ñu wax yàlla loolu la ñu wax yàlla moom la ñuy feetu décembre moom la ñuy feetu premier janvier waaye xam nga lu doy waar mooy jullit yi dañ leen a naxa naxa naxa nax ba gëmloo leen ni du affaire diine mais affaire mondial la ba tax na bu mbir yi amee ñépp jóg lang ci soo waxee jullit bi mu ne la non non non non affaire boobu man 30 premier janvier année la waaye ba tey sax d'accord naa foofu même bu dul sax décembre bi bu ñu jëlee année bi année bi année ñan la masih mooy chrétien ñun dafa am lu ñu jàng te leerul ci ñun dañoo jàng alxuraan te alxuraan leerul ci ñun ca saar yu ndaw ya nag mën naa diggante waylun li kulli ba suuratu naas diggante bi rek bu ko jullit mokkoon mu leer ci moom rek jullit bi xam fu muy def tànkam
ñoom mokkal nañ ko de dañ ko déggul comprendre ko ñaata ci ñun safa ak witre suñ koy julli yan saar la ñuy jàng safa ak witre
ñu ngi jàngoon sadisme rabbika ak qul yaa ayyuhal kaafiruun saar boobu doy na qul yaa kaafiruun lan la wax ci fin bi lakum diinukum wala ya diin jeex loolu muy tekki
mooy mooy man damaa yor sama diine moom laay dund ñeneen ñi yor seen i yëf yi bopp kon ku nekk li nga yor war na la doy kon nun lan lañ uti feneen rawatina suratul ixlaas lan la yàlla wax lam yalid wala mu yulat walam yulat juruma kenn kenn juruma loolu leer na saar boobu ñëpp ko mën ci Sénégal waaye tey nit ñi wax jooju ñu wax yàlla mooy yàlla dafa am doom nga xam ne jinne yi jinne yi ban ko déggee ñoom dañ koo weddi jinne yi laa wax de jinne yi ñoo ne wa annahu taala jaddu rabbina mattaxaza saaxibatan wala walada yàlla nee na jinne yi nee nañ ci suratul jinn wa annahu li wër tey mbir taala kawe na màgg na fu ngeen ko nattu wees na ko lan jaddu rabbina sunu màggaayu boroom allah foo ko natt rek jinne yi nee nañu wees na ko mattaxaza saahibatan wala walada amul soxna nii doom soxna ak doom dafa am lu ko lu ko mbindeef di doyee képp ku am soxna nga am doom da nga manqué yàlla nag wa kullun aatihi yawma alqiyamati in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahman abda yàlla ay jaam la am yàlla soxlawul doom doomu aadama manqué moo tax mu am soxna manqué moo tax mu am doom moo tax mbirum soxna ak doom manqué la yàlla nag dafa mat da ngay dégg sax ñu ne la alkamalu lillah lillah yàlla soxlawul doom wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu soxlawul doom kon lan la kon lan la koy doyee kon yàlla li mu wax ne saaga nañ ma te yellul ci ñoom ñu may saaga saaga bi du lan mooy yàlla da nga am doom te yàlla nee na aw ma soxna al imaamul baxillaani rahimahullah dafa def débat ak benn ay labbe dafa dugg ci seen église gars yi ne ko danañ la poser ay questions soo ko tontul danañ la rey mu ne bismillah ñu ne ko loo xam yéen seen yonent nee na dafa musa ñaan weer wi xar ñaar loolu mënul nekk mu ne leen ma tontu leen ci xel wala ci xam-xam gars yi ne ko tontu ñu ci xam-xam mu ne leen yéen nee ngeen Isa dafa musa ñaan taabul wàcc jóge kaw asamaan gars yi ne waaw mu ne ndax yéen lekk ngeen ci gaa yi na patt noppi mu ne ñaari benn ñaari yëpp dafa am lu dëggu la alqo du yéen nag yéen a tax ma dëggal ko mais alxuraan bee mu tuddee ko suratul inshiqaq bii mu tuddee ko almaida suratul maida kooku daal dem toogi keneen ñëw ne ko dama am laaj mu ne ko sa laaj lan la mu ne ko Isa moo gën a set Muhammad non deuxième laaj bi daf ko ne loo xam ci jigéen joo xam ne jabari yonante la ñu koy tuumaal njaaloo kan la ñuy wax suñu yaay Aïcha mu ne ko ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam-xam comme kële dafa ne woon tontu ma ci xam-xam ñu tontu ko ci xam-xam mu daanu kii ne tontu ma ci xel mu ne ko jigéen ju am sox borom kër jigéen ju am borom kër amul doom jigéen joo xam ne amul borom kër am doom ñaar ñooñu kan lañu war a tuumaal njaalo kee daa am borom kër mais amul doom kii amul borom kër am doom ñoom ñaar ku ku njaalo ku xel nangu moo njaalo ki amul borom kër am doom ki amul borom kër am doom
الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم bokki ànd ak seen télévision Bichri TV international ñu ngi jégaluwaat beneen yoon ci jafe-jafe technique yi nga xam ne moom moo ñu gaar ba mu demee nii ñu ngi ci sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala ndax lu mu dogal moo gën lu mu dogalul ñu ngi ànd ak yéen ci seen émission teggin ngeen ànd seeg seen mbokk Seydou Diallo Medina ñu ngi doon ànd ak yéen ci mercredi bi weesu ñu doon waxtaanee ci wàllu teggin yàlla nañu ko yàlla yokk ñun ñëpp amin amin amin defal ko bépp jullit tey nag ñu ngi fas yéene ànd ak sunu sëriñ sunu ustaaz kenn koo xam ne royteef la ci ñu bari waaye royteef la itam ci ñun bari na loo xam ne ci daaw bi ñu ngi ko say def ci moom lañ koy xoolee xataa ci yenn kalima yoo xam ne jëlewuñ ko fenn ku dul ci moom yàlla walbatiku dëppale sunu ñaari tur yi mu doon benn kon loolu lépp tawfiq ilaahiya la ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ñu war a waxtaanee thème bu am solo thème boo xam ne jot na ñépp ñuy waxtaan ci wàllu yarkat yi ci wàllu ustaas yi ci wàllu sëriñ yi ci wàllu xalif généraux yi ñu waxtaanee lii ngir lan fekk seen njaboot ba ñu mun a mucc kooku du kenn ku dul ustaas sayid lii ustaas salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di ziyaara di leen baalo àq di ñaan yàlla tabaraka wa taala sunu jotaay bi yal na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu amiin yaa rabbal aalamiin di ñaanal yàlla waa barab bi ñi ko jiite ak ñi fiy nekk yépp yal na yàlla tabaraka wa taala defal leen tawfiix amiin yaa ilaahi bismillah alhamdulilahi rabbil alamin ci seen émission teggin saa su ne rek mu fexe di dëppoo ak tegginu lislaam ak tegginu jàngale itam ndax bu fekkee da ngay waxtaan ak doomu aadama yi li nga leen bëggoon xamal ñoom jamono bi ñu leen ko waroon laajee ba ñu mën a ko tontu bàyyi nga jamono boobu wees nga koy doog xamal kon yow bàyyi woo tegginu jotaay bàyyi woo tegginu zamaan bàyyi woo tegginu makaan oustaz ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne moom la ñu nekk nii ci mois de décembre muy feetu fin d'année bi nga xam ne atu catholique yi la ñu war a waxtaan ci lislaam nan la gisee feet loolu mooy laaj bu njëkk bi du ñu guddal oustaz feet ci lislaam mooy lan alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu feet dañuy wax ne laysa al iid bi lubsil jadid wa innama al iid liman yaamalu ala taati rabbi feet nekkul sol yére bu bees feet nekkul lekk yàpp feet nekkul sol dàll bu bees feet nekkul mbégte waaye feet jaamu yàlla la feet sant yàlla la sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa jóge màkk ñëw Médine mu fekk waa Médine di feetu mu ne lan moo xew ba ngeen di feetu ñu ne ko yàlla dafa labal sunu noon defal nu tawfiix mu ne noon boobu kan la ñu ne ko firawna moom la yàlla labal yàlla rëccal ñu ñun ak yonentu yàlla Muusa loolu nag saa yu at bi ñëwaatee danañ feetu xam nga yonente bi lu mu leen wax ana awla minkum bi Muusa man maa leen gën a yey ci Muusa gis nga li tax man la feet jaamu yàlla la mu ne bu ma fi yàlla bàyyee dinaa woor bisub tey bi ak bés ba ca tegu gis nga nekk kon feet du noos feet jaamu yàlla la feet sant yàlla la ci xéewal yu la yàlla defal nga sant sa borom tabaraka wa taala loolu mooy feet imam Saïd loolu mooy feet kon mbokk yi dégg-dégg bi nga xam ne moom la lislaam déggee feet oustaz leeralal nañu ko ndaxte yonente bi alayhi afdalu salaatu wasalaam fekkee yahud yi madinatul munawara bi mu leen laajee ñoom dañu ne xewel bu leen yàlla jox la ñu koy reconnaître ci xewel googu ba tax na ñu ko doon woor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen man maa leen gën a yey ndax Seydina Moussa man la doon fàqal yoon man la doon yaatalal yoon bi ngir ma mën a ñëw mu ne nag dinaa wuute ak yéen comme ni ko oustaz waxee ne dinaa woor bés bi ak bés bi nga xam ne moom moo ko jiitu kon gis nga kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci oustaz hadis boobu noonu xam naa dinañ ci ñëwaat inchallah mooy ne yemul ñoom ci niñ ko defee waaye dafa wuuteeg ñoom ci niñ ko defee mais oustaz ñun li ñu gis mooy 31 décembre moom mu neex la mu naqari la feet la waaw waa loolu li ko waral du lenn lu dul réeral ak nax gi ñu nax jullit yi dafa amoon ku ñu colona colonialisé kooku bi mu ñëwee la mu indaale mooy diineem la mu indaale mooy jikkoom la mu indaale mooy programme am mu ñëw jàngal ñu ko yar ñu ci nàmpatal ñu ci ba nu màgg mu bàyyi ñoog loolu kon jullit ñi feet yi ñuy feetu nii actuellement du feet yoo xam ne ñoo ko tànnal seen bopp ndax ci lislaam ñaari feet dong lañ am mooy korité ak tabaski loolu mooy feetu lislaam amul leneen loo fiy dégg feet ba islaam feetal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu wax mooy ñaari feet ngeen am mooy tabaski ak korité léegi nag nga xool Sénégal feet yi ñuy feetu li ma wax li ma la doon wax sànq mooy weer wi nu nekk su fekkoon ne danañ wax ne am na weer wi gën a bon ci weer yi ñu ne mooy weer wi su fekkoon ne laax dañ koy wax waaw weer wi ñi ngi taaral tali yi ñi ngi taal làmp yi kado yi ñu ngi koy jëndal xale yi ñi ngi dem di ut ay yére yu yees ganaar moom day manqué Sénégal gato dafay manqué Sénégal tikke yi nga xam ne si la ñuy demee duggal torox mooy yooyu nga xam ne mooy soirée yi dafay jeex guichet fermé la. xanaa loolu kay moo gën a neex.
waaw alhamdulilah xam nga loolu lépp li ko waral wax naa sànq ne diggante suratul muzammil humaza ba suratul naas diggante bii rek laa wax su leeroon ci boppi julliti Sénégal. kon danañu yëg ni l'islam dafa wuute ak seen gis-gis. su loolu rek laa la waxoon de suratu humaza su leeroon ba suratu naas diggante bu ndaw bi nga xam ne sénégalais loolu rek lañ jàng mbir yi day leer naññ mbir yi day leer naññ ci ñoom ñu xam fu ñuy teg seen tànk lu tax mooy jàng nañ ci suratul kaafiruuna nga xam ne saar bi nga xam ne jamono bu nekk moom la ñuy jullee fajar moom la ñuy jullee safa ak witre suñ jàngee saar bi ba muy jeex day wax lakum diinikum lakum diinukum waliya diin seen diine nga nële man sama diine ngi nii maanaam seen yoon a nga nële man sama yoon a ngi nii xam nga kon loolu bu leeree ci jullit alxuraan ne ko ña nga fi fekk seen yoon a nga nële yow sa yo sa diine ngi nii saar boobu dong bu ko jullit mokkaloon xam fu muy teg tànkam rawatina li tax ma ni la weer wi su fekkoon ne ñeme nañu wax ne moo am na weer wu gën a bon ci weer yi ñu ne la mooy weer wi lu tax ndax ci lañu saaga yàlla sunu borom subhanahu wa taala dafa jékki-jékki wax hadisul qudsi mu ne yonent bi sal sallallahu alayhi wa sallam chatamani ibnu adam doomu aadama de daf maa saaga man yàlla man borom asamaan ak suuf man borom jaam ñi man borom jaam ñi la jaam ñi saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lan la yàlla ne ko wa ma yambagi lahu an yashtumani yellul ci doomu aadama mu may saaga saaga bi mooy lan mu ne doomu aadama nee na man yàlla dama am doom léegi nag ma laaj la tey buñ fekkoon ab kilifa gu liggéey ba wàcc yegg si këram ñu tegal ko ay ginaaram muy leer ba mu ba mu daggee pooj bi ba sex am ko fëgg bunt bi mu ubbi kooku ne ko ah yow day sa bàyyee ngénte feete ab bàyyam amu fa jabar ndax reer boobu dana yegg yaakaar moomu yegg du yegg bu doon añ la añ bi du yegg bu doon ndékki la ndékki li du yegg bu lu waa ji mën a def nekk ci mbégte ñu ñëw jox ko information boobu moom waa ji loolu mu doon def du yegg kon naka lañ koy waxee yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moo tax jinne yi ba nu déggee wax jooju ñoom dañoo riposté weddi ko jinne yi waaw asamaan ba mu déggee wax jooju daf ko weddi suuf ba mu ko déggee daf ko weddi montagne yi bañ ko déggee dañ ko weddi kon kan moo ko saxal mooy doomu aadama mooy li nga wax sànq préparé tali yi préparé lamp yi préparé préparé xoolal mbindee fii yëpp dëkk ak doomu aadama ci kaw suuf dañ ko weddi jinne yee njëkk yàlla nga wax ci suratul jinni jinne ba ñu déggee information boobu dañu ne wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada kawe na foo ko natt ci kaweem ak jombute yàlla wees na loolu mësta am soxna bay am doom lu yàlla di doye doom ndax doom ku manqué moo koy am soxna ku manqué moo koy am danga manqué bëgg a mottaliku moo tax nga am doom moo tax nga am soxna yàlla nag wax naa la sànq alkamalu lillah tabaraka wa taala mooy ki mat asamaan yàlla dana yakaadu samaawaatu yatafattarna asamaan a ngi xar moo ngi xotteeku mu ne wa tanshaqul jibaal montagne yi xar wa taxirul jibaal wa tanshaqul ard lu ko waral an daaw lirrahmani walada asamaan a ngi xotteeku suuf di xar montagne di mab lu ko waral dañ ne yàlla am na doom loolu mooy 24 décembre moom lañ ne yàlla dafa am doom te ñun ñëpp ñuy jàng lam yalit walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad su fekkee dañuy dëggal loolu alquran daf ko weddi tamaman te alquran mooy sunu téere inna masala isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun alhaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin kon yàlla amul doom yàlla jomb na am doom kon ab jullit su fekkente ne gëm na alquran gëm na yàlla borom bi wax lii wax ko ci alquran kon jullit bi lan moo war a nekk taxawaayam dafa war a dëggal li waa réew mi def wala boromam tabaraka wa taala la war a dëggal yaakaar naa bu fekkee ne ñu ngi wax ne gëm nañu yàlla muhammad mooy sunu royukaay yonent bi wax nu lii alquran wax nu lii kon dëgg dëgg dëgg dëgg sunu feetoo décembre rek dañoo réer dañoo xamut beneen bi wax nga léegi premier janvier ay nax yu ñuy nax la naan ñun feetuñu mbirum nasaraan yi waaye dañuy feetu année bi boobu mooy réer bu mag bi ndax année bi année ñan la
chrétien yi la waaw beneen bi yenn saa yi nga dégg jullit bu réer naan waaw man dëgg-dëgg damay feetu lu tax ndax Isa ci la judd te yàlla wax nañu ñu gëm Isa dégg nga de waaw waaw léegi bu fekkee dañ laa tere feetu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kan moo la wax nga feetu juddu Isa ban aaye xam nga dafa bokk ci li réeral jullit yi tey mooy jullit yi di def te duñu laajte lu tax ñuy def jullit yi def te amuñu ndigal li leen jox nañ def na da ngay gis jullit bu xëy rek lal si jaada ñu ne ko looy def mu ne dama am junni rakk yu ma bëgg naa fi la
junni rakk waaw yu ma bëgg naa fi la wala téeméeri rakk yu ma bëgg naa fi la wala nga gis ko mu yor kurusam nga ne ko loo bëgg a def ni mu ne dafa am lu ma bëgg a wirdi fii léegi loolu nga war a def yow da nga cee war a jot ndigal
ku joxe ndigal la yàlla yàlla mooy joxe ndigal yàlla moo naan def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi lu tax man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd képp ku dugal dara ci diine jii te yàlla waxu la ko yàlla dala koy delloo kon balaa ñuy feetu benn feet balaa ñuy gëm dara yàlla daf ñu ko war a wax kon benn juddu Isa ñun waruñu ko feetu année bi waruñu ko feetu ndax benn ñun bokkuñu ci moomuñu ko al imaamul baqillaani rahimahullah dafa am débat bu mu def débat bi war a jërit jullit ñëpp église dañ ko laaj ñetti laaj laaj bu njëkk mooy dañ ko ne yéen nee ngeen seenub yonent mës na ñaan weer wi xar ñaar mu ne leen waaw ñu ne ko lu tax kenn gisu ko ku dul waa màkk ki ko laaj laaj bi mu ne ko ma tontu la ci xel wala ma tontu la ci xam-xam mu ne ko tontu ma ci xam-xam mu ne ko yéen tamit nee ngeen seenub yonent Isa mës na ñaan taabal wàcc jóge kaw asmaan bu am ay lekk waa ji ne ko dëgg la mu ne ko ndax yow lekk nga ji waa ji ne ko déedéet mu ne ko ñaar yëpp dinaa ko dëggal waaye du yow yaa tax alxuraan moo ko dëggal moo tax ma dëggal ko benn bi mu tuddee ko suratul inshiqaq beneen bi mu tuddee ko suratul maida kooku daal di daanu dem taxaw keneen jóg taxaw na ko man am naa laaj waaye sama laaj dooma tontu ci xam-xam ci xel nga may tontu ndax ku sànq ki gis na ne tontu leen ma ci xam-xam ñu daaneel ko kii ne moom tontu leen ma ci xel mu ne ko sa laaj lan la mu ne ko soxna kilifa ab yonent bu ñuy tuumaal njaaloo loolu loo ci wax mu ne ko baax na mu ne ko léegi dama lay laaj soxna si nga xam ne dafa am borom kër amul doom soxna see amul borom kër am doom bu ñuy tuumaal njaar yooyu ci xel kañ la ñuy tontu kan la ñuy tuumaal laaj la
ci xel ci xel ki am jëkkër amul doom kee amul borom kër am doom ñoom ñaar bu ñu lay wax ku njaaloo kan la ah ki amul te am moom la ñuy yàq moom la ñuy- mu ne ko ñaar yooyu benn amu ci bu fekkee soxna si am borom kër alxuraan leeral na ko inna alladina jaa'u bil ifki usbatum minkum ñi indi fen bi dugal ko ci biir Médine ñenn la ci ay naafeq yu dëkk Médine waaye yaay Aïcha deful loolu mu ne ko bu fekkee beneen keneen ki la mooy Maryam yàlla nee na inna masala isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun alxaqu min rabbik fala takunana min almumtarin kon ñaar yi benn amu ci tabarakallah kooku daal di daanu keneen ki jóg taxaw ñetteel bi ñetteelu personne bi ne ko man am naa laaj bu mag waaye ci xel nga may tont am quoi mu ne ko laaj bi lan la mu ne ko isa atharu min muhammad isa moo gën a set muhammad imaam ne ko lu tax mu ne ko ndax yéen nee ngeen muhammad dafa amoon ay soxna am doom mu ne ko waaw mu ne ko sëy dafa salte ku ko def da ngaa salte isa moom musta sëy al imaam ne tekk ba ci yàgg ne ko kon isa moo gën a set baayam ndax nee ngeen yàllaa ko jur kon doom ji nu muy gën a sete baay ji mu daal di yuuxu ne ko qulta haqqan wallahi wa nataqta sidqan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah église bi yëpp tuub allahu akbar kabira lu mu wax foofu ne ko nee ngeen Isa moo gën a laab Muhammad lu tax mu ne ko Muhammad dafa am soxna am ay doom sëy ku ko def da ngaa salte mu ne ko kon yee nee ngeen Isa moo gën a set baayam ndax nee ngeen yàllaa ko jur naka la doom ji di gën a set baay ji waaye ki jiite woon barab ba daal di yuuxu ne ko wax nga dëgg xulta xaqan wa nataqta sidqan lay nga lu leer lu ne weng lu set wicc lu nekk dëgg man nag tey maa ngi seede ne yàlla kenn la muhammad yàlla ko yónni ña toppoon ci ginnaawam yépp tuub kon ñun ñooñu sax mbir mi leer na ci ñoom ñu tuub ñun nag kon ñun lu ñu teree tuub kon mbir mi yombewul ne feet la nii rek déedéet waaye feet boo xam ne dafa laxas wàllu pas-pas waaw wàllu diine wàllu pas-pas pas mu ngoog ñu imposé ñu ko tubaab yi ñëw indi seen diine indi seen politique wëlbatiku ñoom ñu génn fi bàyyi seen diine bàyyi seen politique kon dafa war a laajaat ñi nga xam ne ñooy waxtaan ak nit ñi ñu leerale leen ko mais bu fekkee nag kenn ki moom dafa ne moom gëmu ko sax mais gis na ñëpp dañuy togg dafa war a togg ànd ak ñëpp ndax day bañ doomam mu dem ñaani wala mu ne damay bañ sama doom mu jooy ndax lan amul cadeau boo xam ne jox naa ko ko kon dafay jooy ci cadeau moroomam yi est-ce que dina yella jullit bi lu ñëpp di def rek mu ànd ak ndoog moom defandoo ko donte dafay dab dafay dabu bànneexu njabootam jërëjëf jazakum la xeeral damay faral di wax ni Sénégal nax guñ ñu nax dafa feeñ fépp ñaata la ñu wax Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman xoolal tey ñu ngi ci pak ñaata la ñuy may feet yi élève élève ñaata lañ leen di may feet ay feet fan ci feet yi ay 15 21 jours ñaata la ñuy may julli ñi tabaskee korité benn fan benn fan te ñun ñoo ëpp ñun tey da ngay tabaski suba nga xëy liggéey ñee ñu may leen 15 jours 13 jours 14 jours lu kenn xamut ñu feetu ba doyal pourquoi te ñun ñoo ëpp kon ñan ñooy feetu feet bi mooy jullit yi borom xam-xam yi dañuy wax ne weer wi jour 24 kenn waru cee soppi cin
kenn waru say soppi ci waaw ñu ne weer wi kuñ ci may cadeau sax waroo ko jël dañoo yor benn école jardin d'enfants ci weer wii nii dañuy takwin xale yi di leen former pour ñu bañ a feetu pour ñu gëm ne ñun dañoo war a jàng ñun bu nit ñi jëlee feet ñun dañuy jàng daara ji ñëppay jàng tout kenn du jël feet jàngalekat yi sax xam nañ loolu dañuy jàngale si mais xam nga xale yi foog nga préparer leen ñu jàpp xale yi di leen préparer di leen waajal di leen yëgal ne ñun jullit lañu ñun duñu ay nasaraan duñu ay yahud ñu am ci benn xale ndeysaan mu ngi tudd Ibrahima Ngom Ibrahima xëy suba 25 décembre xam nga nit ñi dañuy feetu moom ay magam ñi ngi jàngee école nasaraan magam yi am feet moom mu xëy fajar ñu sang ko solal ko ay yéreem solal ko saakam mu génn sa tërë demi papa jaa ngi ci kaw balcon bi di jàng alxuraanam xale yaa ngi toog ci wetam bi mu génnee buntu kër gi ñu ni nii xool ñu gis ko moom mooy jàngi mag ñi di ko tooñ magam yi naan ko wuu wuu Ibrahima yéen amu leen feet mu daal di jàkkaarloog ñoom yëkkati ay loxoom ne leen ñun jullit lañu allahu akbar
ñun jullit lañu ak ni mu ko defee ñaari loxo yi mu ne leen ñun jullit lañu papa ji nee na fi ma taxawoon damaa toog ndax tuuti ma jóge ci balcon bi wadd ndax kurpeñ la ma dóor ci sama dënn bi mu ne sama bët yi taa ma toog sama rongoñ yi tuuru may xool xale bi ba mu jéggi tali bi jëm mbeddu école mu ne ma kontaan ma kontaan ma bëgg parce que loolu pas-pas boobu la ñu war a am ñun jullit lañu dafa jot Sénégal ñu ne ñun jullit lañu tey ñun jullit bu ñu feetuwul woon rek feet bi yëpp na sax waaye wax nga ko léegi da ngay gis ku ne man du ma feetu waaye damay damay dama koy def en famille weer wii nii bis boobu ku ci rey ginaar dina la kalaame ak yàlla ndax wax naa la ko léegi bokkaale la ndax lu ñu sosal yàlla lu ñu ko tuumaal yow nga ñëw di ko dëggal ku tol ne yàlla subhanahu wa taala ñu ne dafa am doom ak yàlla tabaraka wa taala ni mu ko weddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu amoon luy metti yàlla ci kaw suuf mooy wax jooju la mooy loolu ñu ne yàlla def ñu askane ne yàlla doom léegi nag jullit bi dégg loolu moom di ci soppi cinam wala mu ciy bégal njabootam wax naa la sànq ne loolu tey kuñ ko waxoon baayam ku tegoon kaasu café di ndékki yor sa mburu di xàmp di guux ñu ñëw ne la sa baay tey mooy ngénte koñ bale te amul doom amul jabar amu fa jabar looy wax ndékki li du yegg bu doon añ la du yegg bu doon reer la du yegg kon jullit yi dafa jot ki ko wax sax boo moytu di nga ko dóor kurpañ avant nga xam li xam ah kon jërëjëf ndax ñàkk teg kon jot na tey jullit yi xam lan moo xew ñoom lan lañu moom ak lan lañu war a bokk dafa jot ñu wax ko jullit yi léeg-léeg soo ko waxee ñu ne kii dafay bëgg a indi xare wala kii dafa bëgg ñu bañ di wal déedéet ñun amuñu droit bañ kenn ñun dañoo war a bëgg képp kuy mbindeef ñun julli ñi dañoo war a ànd dañoo war a jàppante waaye nag du lu ñu bëgg bëgg nit du tere nag ñu def sunu diine mbir ma mbirum diine la mbirum pas-pas la képp ku gëm ne Isa yàllaa ko jur boo dee da nga dem safara ndax moom Isa sax moo ne ñi ne yàllaa ko jur ñooñu ay yéeféer lañ laqad kafara alladina qaalu inna allaha saalisu salaasa ñi ne yàlla ñett la yàlla yàlla la doom ji yàlla la yaay ji yàlla la yàlla nee na ñooñu ay yéeféer lañ waaye Isa ci boppam moo ne falamma ahassa Isa minhumul kufra ba Isa santré ne ñii jege ko ñii wër ko ni ay yéeféer lañ qaala man ansaariya ila allah mu daal leen fi ñu ko uti ku ko dimbali ñu jëm ci yàlla kon moom ci boppam xamoon na ne li entourage am bi ay yéeféere ngi ci kon ku weddi képp ku gëm sa pas-pas nga boole ci yàllaa jur Isa yow génn nga ci islam ba set wicc soo dee lay tere dugg safara mooy nga dee kon bu ko neexee mën na dem wuti croix
waaw commencé def trinité képp koo xam ne da ngaa gëm ne Isa yàllaa ko jur te nga bokk ci jullit yi bu yeboo nga xam ne génn nga ci bokkatoo ci lislaam kon muamala rafetal jëflante suñu diggante ak ñi dul jullit yeggul ci ñuy ànd ak ñoom ci seen yooye nga xam ne ñoom dañ ko tuddee jaamu yàlla ndax bu dee 24 25 décembre bi wala 24 bi ñoom dañuy dem seen église yi di def seen kolon kolon yooyu di lekk seen tàngal yooyu buy wëlbatikoo sol seen costume ak seen nœud papillon yi delluwaat seen kër dem teg sàngara si continuer ci seen ay musique am na téere bu tudd iqtida siraatul mustaqim sëriñ ba ko bind dafay wax ne weer wii nii ñu nekk bépp jullit bu ci dugg église wala nga soppi ci cin wala nga jënd ci kado wala nga maye ci kado yow bokk nga ci ñoom lu tax man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ku nuru nurul ay nit yonent bi nee na yaa ngi ñoom a yem képp ku nuru nurul ay nit boo dee ñu dekkil la ca ñooñu kon nag lépp lu ñu diine sant ci jëflante ci dëkkandoo bu rafet eggul ci nag ñu leen di dimbali ci seen diine rawatina nag la nga xam ne moo ca xew sax ñoom seen diine ji daf koy weddi diine ji daf koy weddi ñu bari dañuy wax ne Isa sax juddiwul décembre lu tax ndax borom xam-xam yi dañuy wax ne Isa mi ngi juddu jamono yi tàndarma ji di ñor juddul weeru sedd xam nga décembre dafa sedd te tàndarma du ñor ci sedd ndax lan Mariama ba mu amee doom ba pare la ko yàlla wax gëzëmal tàndarma gi loolu rek daf ko weddi kon dafa leer sax ne Isa judduwul décembre ba muy juddu 24 décembre mais tey lan mooy problème mooy jullit yi dañoo nekk al toppe te loolu day dëggal nekkug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkug yonent yonent bi toog ba ci tàgg mu ne la tattabi'unna sunana man kaana qablakum sibran bi sibr wa ziraan bi zira hatta law daxalu xujra dabbin daxaltumu qul naa ya rasulallah man fa man mu ne alyahud wa nasara yonent bi saa sallam dafa jékki-jékki mu ne yéen a ngi nii yéen jullit ñi ma gis maa ngi leen di gis tey ëllëg ngeen di toppandoo yeneen xeet yi leen fi jiitu woon tànk ak tànk mbagg ak mbagg xam nga boo toppee ni tànk ak tànk mbagg ak mbagg kooku du la raw ndax lu mu def nga def ko xoolal tey sunu xeet wi xoolal sunu jigéen ñi xoolal seen tube yi ñuy xool daanaka mën nga ne Sénégal amatul jigéen juy woddu lépp tube yi la ñuy sol ba pare tube yu bon a bon a bon génne seeni yaram ci biti xonqal tuñ yi xonqal yaram wi guddal kawar yi ah sol yu daanaka tey jigéen ñi la ñuy sol soo ko mën nga kaa peese du mat kilo kan la ñuy roy ci loolu ndax ndax ndax soxna jaara noonu la doon solo ndax maam Fawad Wele noonu la doon solo ndax Adama Aysa noonu la doon solo te li doy waar mooy da ngay gis ñi ko def ba pare di tiitaroo sëriñ si lan la Cheikh Ahmed Bamba wax waylun liman maala kullu waylun li man maa la ilan nasaara tey bu ñëwaatoon àdduna mu fekk nit ñi Sénégal ñuy feetu 24 décembre ah ak li mu daj lépp kon nit ñi dafa jaadu ñu delloo siwaat leen xamal leen lan mooy islaam xamal leen lan mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah loolu moo réer loolu moo jafe loolu tey moo réer nit ñi laa ilaha illallah muhammad rasulullah mooy lan laa ilaha illallah laa ilaha day weddi illallah day saxal ñun nag dañoo weddiwut di saxal loolu mooy sunu problème waaw léegi oustaz laa ilaha illah laa boobu nga xam ne daanaka léegi dañ koy fecc dañ koy fecc boo duggee ci ñoñ diine yi dañ koy fecc boo duggee ci ñoñ ñi nga xam ne ay philosophe lañ dañ koy fecc est-ce que ñooñu waroon nañu laajte mooy lii ma bëgg a def nii lan la ci lislaam wax comme ni nga ko xamee wala yaxillu ala almukallafi an yafala filan xatta yaalam hukman laahi fii est ce que jaaduwaatul ñu delluwaat ñun ñu judduwaat ci sunu diine mel ni ñu ngi am juróom-ñaari at toog ci kanam ci keppaaru kilifa diine gi ne ko dañu bëggoon nga xamal ñu lan lan war a def nga wax ñu lan lañu war a moytu ngir ñu mucc waaw xam nga li yëpp lu ko waral colonialiste bi dafa ñëw ci réew mi fekk fi ay daara fekk fi ay kilifa diine ñi mu rey leen ñi mu exilé leen mu lakk daara yi tëj ko ba pare indi fi lu am teg daan ne kenn dootu fi jàng alxuraan moo loolu ngay gis nii tey ñu daal di exiger nit ñi ku am sept ans la budda day dem jàngi nasaraan ñu exiger leen yooyu wax leen yoo xam ne jàngal leen loo xam ne ci ñun du diine exiger leen loo xam ne du pas-pas wérut waaye lan mooy wax ji mooy loolu tey nga xam ne du diine te ñu gëmloo leen ko li ci jaadu mooy ñu delluwaat jàngal nit ñi diine ndax Sénégal tey nit ñi dañoo nekk ay jullit mais xamuñu islam ndax da ngay gis koo xam ne la muy def l'islam da ne lii kenn du ko def mu taxaw di ko def tey boo doon jàngaat suñu dund di ko càmbar benn par benn ca ngénte ca céet ca dëj maanaam mboolem cérémonie mboolem dundini jullit bi da ngay gis la muy def wuuteeg islam te moom nee na ci islam la nekk ca colkaam ca na muy dëkkee ca lépp da ngay gis jullit bi wuuteeg l'islam ba pare di wax ne man maa ngi ci l'islam loolu mu rus lu ko waral nag mooy tubaab bi jàngal bi mu leen jàngal pas-pasam jàngal leen ay xalaatam topp leen aw yoonam looloo tax tey jullit yi daal di sanku daal di topp yoonu nasaraan bi daal di topp yoonu yahudi wuuteeg yoonu sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam looloo tax tey jii dafa jaadu daara yi école diine yi rajo yeeg télé yi ñépp ñu ci nekk leeralaat diine bi xamal jullit yi lii nu nekk ay fo kese la du diine
oustaz li ñu nekk xoolal du diine est-ce que duñu jëlaat programme boo xam ne muy usulu salaat ngir ñu jàngalaat ko doomu aadama yi ñu xam fondement bi ñu war a def ngir mu mën a taawu suñu ngëm yàlla
mun naa la dëggal ci loolu ndax dañuy wax ne nit dafa war a xam ñett ci dundam nga war a xam yàlla sa borom nga xam sa yonent muhammad nga xam sa islaam te ñett yooyu loolu nga wax da koy jàngale nit bu xamul yàlla du jaamu yàlla nit su xamul islaam du ko topp nit su xamul sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam du ko mun topp looloo tax kon dafa jaadu tey jii depuis ba âge ci picc jardin ca xale yi ndaw ya soo gisee liir bu juddoo ñu ne ko nañu wax ci nopp bi la ilaha illallah muhammad rasulullah imam bi bu ñëwee loolu lay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah loolu du ay baati kese loolu dafa war a am lu mu jur ci dundam loolu dafa représenté dara loolu dafa war a daf ko war a fasloo ne yàlla kenn la muhammad mooy toppkaay mooy royukaay bi muhammad fan la tàmbalee ab jullit keroog bi mu juddoo bi ñuy nodd ci nopp yi di di liqaam ci nopp beneen bi diggante nodd ak li xam ban tur moo fa nekk muhammad ci biir julli ngay taaya doo wax tur benn doomu aadama turu kan ngay wax muhammad suñuy li xam ci julli gi turu muhammad la ñuy wax suñuy nodd turu muhammad la ñuy wax xutba bi imam bi ci biir jàkk bi turu muhammad lay wax soo faatoo ñu dugal la bàmmeel duñ la laaj kenn kuñ lay laaj muhammad maza kunta taqulu ala hadha al abd muhammada muhammad moomu kon jar naa xam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi nag boo ko réeree nooy dunde diine te muhammad moo ñëwoon di jàngale diine ji nuñ koy dundee loolu mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah muhammad rasulullah li muy tekki lépp du lenn lu dul muhammad mooy wane nu ñuy jaamoo yàlla moo tax ba mu jullee ba pare mu ne sahaaba yi sallu kama raaytumuni usalli ba mu taxawee ci arafat di aj mu ne leen xuzu an ni manasikakum jël leen ci man nu ngeen di jaamoo yàlla kon ñu reeralaat ñu ne dañu war a delluwaat dëkk bi jàngalaat nit ñi diine bàyyi nit ñi nax giñ leen di nax tuur giñ leen di tuur lëndëm lu ñëw ñu dugal leen ci te bokkuñu ci jullit dafa am lu mu moom jullit dafa war a am pas-pas jullit dafa war a am ngëm-ngëm jullit benn yoon dong la war a topp mooy siraatal mustaqim munoo weex ñuul man jullit laa man nasaraan laa man yahud laa munul ne jullit laa waaye déedéet te l'islam dafa ñëw pour wuuteeg yahud pour wuuteeg nasaraan ci ay tomb yu bari l'islam moo taxoon ma doon wax foofu ci ahadis ba sànq jërëjëf boo yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne dinaa woor bés bi nga xam ne yéen ko doon woor mais dama ci yokk beneen bés ngir wuute ak yéen l'islam dafa ñëw pour wuuteeg yahud pour wuuteeg nasaraan ci ay tomb yu bari na nga ko natt par benn ba ca njëkk mooy l'islam daa ñëw fekk leen ñuy jublu masjidil aqsa moom mu daal di tourner jullu masjidul haram masjidul haram l'islam ñëw fekk ñoom bu ñuy dugg ci seen église yi dañuy yor ay cloche ñeneen yor buuq mooy keleron boobu yahudi sahaaba yi bi ñu- yonent bi tabaxee jàkka ji ba pare gars yi ne ko nañ ut cloche mu ne kon dañuy nuroog nasaraan yi ñu ne ko kon nañ ut béjjén bi mu ne kon dañuy nuroog yahudi yi ay sahaaba ñoo tëdd di nelaw yàlla yenkewal leen wan leen ci gént ne lii lañ war a wax ñu jàngal ko bilaal mu mokkal ko bilaal di nodd kon wuute nañ foofu naam ci sikkim ak naanu mooy moustache yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bàyyi leen sikkim yi ngeen wàññi moustache yi yahud yi dañuy bàyyi ñaar yëpp nasaraan yi dañuy war sikkim bi dégg nga de nasaraan yi dañuy war sikkim bi bàyyi moustache yi yahud yi dañuy bàyyi ñaar yëpp ñu wadd yéen wàññi leen sik moustache yi ngeen bàyyi sikkim yi loolu leer na ngeen wuteek ñoom mu ñëw fekk leen ñuy foo samedi ak dimanche mu indi leen ajjuma leen yéen seen feet ajjuma la mu nekk bis bi gën ci bis yi xayru yawmin talaat fihi sams yawmul jumaa mu ñëw fekk leen ñuy feetu samedi ak dimanche mu ne woor leen ko woor leen samedi bi ak dimanche wala ngeen war vendredi ak samedi wala ngeen war dimanche ak lundi ngeen wuuteeg ñoom ngeen bu leen ci mooy yàlla mu ñëw fekk leen bu ñuy julli dañuy simmi dàll moom mu ne yéen bu ngeen di julli sol leen dàll ñoom fu ñu ko jëlee faxla na alayk innaka bil waadil muqaddasi tuwa simmil say dàll yow Moussa mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow solal say dàll mu ñëw fekk leen jigéen bu gisee baax dañ koy génne kër gi dugal ko ci ginnaaw ca wanag wa du ñu lekk ndoog moom du ñu fanaan ndoog moom yonent bi ñëw ne isna'u kulla shay illa al jima def leen lépp ba mu des ba mu ba mu des sëy yaay Aïcha dina tëri nee na su ma loolu daboon damay woddu sama jumbax ba ci sama oom ma fanaan ak yonent bi lu nekk la ñuy def ba mu des sëy laa ilaha illallah yonent bi ndax wuute gu mu wuuteeg ñoom kon tey yonent bi su wuuteeg ñoom ba ñoom ñu naan waa waa ji lu ko dal moom saa yu déggee ñun lii la ñuy def mu def leneen tey bu yonent bi dekk waa doon fekk julli di di feetu 24 décembre ak 31 lu xew kon loolu mooy wax ji du lenn nag lu dul réere suñu diine ak suñu pas-pas du lenn lu dul ñàkk a xam fi nga bokk olof yi dañuy wax ne kuy xaaraani sa kër a togg ñun nag suñu kër dafa togg moo tax waruñoo xaaraani ñu toog ba yekkalaate waaw ñun waruñoo xaaraani waruñoo bokki fenn beneen bi gën a doy waar mooy foo giñ ci dugal hatta nasaraani sax duñ ko defee noonu foofu laa bëggoon sàngara si musique bi ah dafa am benn dafa am benn année ca Popenguine benn nasaraan taxaw naan ay waay yéen julli ñi dimbali leen ñu sunu sàngara si bu leen ko naan sagane yéen a koy naan ba mu jeex ñun duñ ci mën a bokk xam nga loolu gàcce la il faut ngeen waaw am nasaraan taxaw naan yéen dimbali leen ñi ci sàngara si yéen a koy naan année bu nekk ba nun ñi duñ ci bokk kon su ko defee nanu góorgóorlu xam ñun li ñu moom xam fi ñu bokk xam lan lañ war a def xam sunu pas-pas lan la ñu sant loolu damay fàttali daaw jéeg ñuy def benn émission benn waaye ju dugg du ma wax sax fa la nekk mu ne moom affaire am mooy sàngara si ñuy jaay ak sëng bi xam nga kañ lay gën a dox mu ne am mu ne jamono bu dul weeru koor la am loo xam ne ci li muy jaayee ci sàngara dafay bëri lool allahu akbar
ñu ne ko lu waral loolu mu ne jullit yi bu fekkee dañoo woor du ñu ñëw naan si sàngara dama sama client jullit ñi ñoo ci ëpp allahu akbar bi nga dëkk fii ci Grand Yoff
ndeysaan ñun ñi ko dalaloon ndeysaan ñu xam ne am na liggéey bu rëy a rëy rëy rëy rëy rëy boo xam ne mi ngi ñuy xaar dafa am jenn waay bu mus a wax lu mel noonu ci émission moom mu ne seen gars yi ñoo fii njaaloo ñoo fii lii man maa ngi ni damaa solu làbbe du ma jege jigéen ndax damaa sell suñu jigéen ñi dañoo sell mu ne ko kon da ngeen sell moo tax du ngeen am doom mu ne ma waaw ndeysaan ma ne ko alhamdulilah bi kàddu gi ñëwee ci man ma ne ko léegi nan nan nan nan ngay qualifier allah subhanahu wa taala ndax nee ngeen isa doomam la mu daal di noppi ndeysaan fa buhita allazi kafar wallahi la asib mu noppi benn waaye dafa woote mu tudd mendi mu ne salaamaaleykum mu ne waaleykum salaam mu ne man maa ngi ànd ak oustaz bi jàllo mais oustaz man musuma xalaat bi nga wax mais oustaz mais affaire bi affaire bi garaaw na Mhm.
man musuma xalaat boobu de kon man non oustaz oustaz yàlla na la yàlla fay waaye oustaz rek mu daal di coupé kooku xam nga ne day tuubi tuubi na ci lu wér parce que mit lañ ko jàppoon di leen nax ci loolu jullit ñi nag waruñu doxalee noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee biiram ak bitim dara nëbbuwu ci yaa ngi ñuy wax suñu yaay Aïcha radiyallahu anha ne bu musaan toll ci jamono bu muy gis mbaax dafay taaxlaayu ci kaw ju mbaax ba ba ci suufu oom bi mais xoolal soxna su mel noonu su màggaay ci sellaay nekk soxna su koo xam ne mu gën Ci ci mbindeef.
mbindeef yi mu nettali loolu loolu kuñ ko nettali woon ci moom mu ñaaw waaw waaye lii buñ koy nettali dafay rafet du ñu won ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy roy téef bi nga xam ne képp ku ko roy romb Mhm. leen dinaa la ko yëgal mooy yonent bi dundam alif ba yaa lépp a lépp lañ leeral am na ci yenn yoo xam ne buñ koy wax ci moom da ngay kontaan te suñ ko waxee ci sa kilifa nga jël yar sallallahu alayhi wa sallam dafa day faje aajoom comme nit ñi ni ñuy faje aajoom mooy day dem ginnaaw kër mu ànd ak kenn ci saxaaba yi kooku di ko téyel ndox mi ñu dem suñ demee ba sori moom day wax kooku taxawal mu jël ndox mi mu dem ba sori mu yegg suuf faj aajoom defaru ñëwaat fekk waa ji fi mu taxaw mu jox ko ndox mi ñu continuer benn bis fi mu bàyyi waa ji moom mu continuer mu jékki-jékki siggi gis waa ji yéeg fu kawe di di ko yërndu loolu tey xool ku ko defoon sa kilifa waaye sa ba sa kilifa dugg ci toilette bi fi ñuy dugal caabi ji nga ñëw dugal fa sa bët di yër tax ma ñu fàtt ko su kilifa gi génnee ba wax loolu njaboot gi ci biti luñ lay def dafay fàtt sallallahu alayhi wa sallam siggi gis waa ji di ko xool waxul dara mu faj aajoom ñëw fekk waa ji fi mu taxaw waa ji delluwaat na ca barab ba mu jox ko ndox mi ñu dem ñaari jéego mu ne ko yow fi ma la bàyyi woon de taxawoo fa waa ji ne ko waaw mu ne ko dafa mel ne gis naa la nga séen ma di ma yër mu ne waaw mu ne loo ci jublu mu ne dama la doon xool pour mbir mi bu ma dabee ma toogee ni nga toogee balaa may wuuteeg yow yàlla di ma alak parce que yàlla nee na ku wuuteeg yow mu alak la ilaha illallah فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب alim képp ku wuteeg yonent bi yàlla da koy alak ma bëgg mbir mi bu ma dawee ma toogee ni nga toogee loolu doo nga laa doon xool xoolal loolu dañ la koy wax mu nekk mbégte waaye suñ ko waxoon keneen moom la ñuy wax léppam mu nekk ci ñun jaamu yàlla mu nekk ci ñun mbégte mu nekk ci ñun loo xam ne waxtaan gi ñu koy waxtaane yàlla daf ñu koy fay parce que dañuy leeral diine xam nga lu tax moom dong lañ war a topp laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana looloo tax ñu war a moom daraam léerul ré- réerul yonent bi daraam réerul moom dong mooy nit ki nga xam ne moom dong lañ mën a roy kon moom amul zahir ak baati déedéet lépp moo feeñ ci biti ndax léppam lan war a xam yonent yàlla Muusa mënuñu ko roy cent pour cent mu I- Ibrahim mboolem yonent boo teg mën nañ koo topp ci lii leneen kenn mënu ko cee topp lu tax Moussa Muusa jiitewul woon réew
non yonent yàlla Muhammad dafa jiite woon réew Moussa amul woon doom yonte yàlla Muhammad dafa am doom soo toppee woon tey Moussa ci yar kan kan la yar gis nga yonent bi nag loo ko topp lépp dafa am doom ay doom xam nu mu leen di yare am ay soxna xam nu muy nekkee ak ñoom nekk yonent nekk imam ci jàkka ji nekk commandant de guerre guerre bi guerre bu amoon ko fu muy def sallallahu alayhi wa sallam day jiitu ca kanam sol kaskam jàng ñu ne Uhud dañ koo dóor ba mu daanu bëñ yi damm kon mbir yi leer nañ yonent bi moom dong lañ mën a roy ci lépp moo tax yàlla ñu ne na ngeen ko roy ci lépp sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ki mooy Oustaz Sayid Ly ñu waxtaanee ci feet yi nga xam ne bëgg nañu kenn ku ne ku ko waajoon te doon ak jullit nga dégg wax ji ci déggin wu gën a rafet wëlbatiku lépp loo waajoon ci safaan nga daal di koy teg ci suuf xam ne dafa laal sa wàllu pas-pas Oustaz léegi nan la ñuy def ba sensibiliser waat gaa ñi waaw comme nii rek ndax gaa yi tasaaroo nañ comme nii rek jàkka yi tey li may wax léegi mbir yi bu leeroon jàkka yi bu ñu defoon seen liggéey kon diine jëlee fa leer waaye xam nga imam buy feetu décembre waa jàkka ji nu ñuy def isa kaana rabbul bayt bi duffi daari su fekkee borom kër gi moo jiite tëggub sabar bi jabar jeey tàccu kon doom yi nu ñuy def dañuy fecc imam buy feetu décembre kon waa këram nu ñuy def dañuy feetu kon jàkka ji nu ñuy def dañuy feetu waaye tey ji kilifa googu bu mbir mi leeroon ci moom mu koy leeral waxtu yi juróom yi yépp ñaata jullit ñooy ñëw ci jàkka ji ay junni ñaata waxtu la ñuy ñëw jour vendredi ñaata nit beneen bi gën a mag mooy sunu kilifa diine yi ñoom tamit dañoo war a wax ay événement gis nga jullit am na événement yoo xam ne kenn warul noppi rawatina léegi nii fi ñu toll nii tey jii dëgg dëgg dëgg sunu kilifa diine yi sunu xalifa yi ñoom ñëpp dañoo war a wax wala ñi leen ñi leen di jottalil dañoo war a wax dañoo war a wax jullit yi fan lañ bokk ñan ñooy jullit yi xoolal tey événement bi gën a garaaw ci àdduna bi mooy ñoo ngi toog waaye masjidul aqsa dañ koo nar a nangu ci loxo jullit yi loolu ñëpp a war a wax loolu dinañ ci ñëw Oustaz xaw ma nu ngi demee nag mais maa ngi ciy waajal plateau boo xam ne plateau spécial la incha allah sa yaram nu yaa ngi tey jii fi ñu toll ci àdduna bi ci leeral ak ci taxawaay jullit yi dañoo war a jóg dañoo war a wax dañ ci des gannaaw waaw rawatina nag yii nga xam ne tey jii ci ñun ñi nga xam ne ay quatre-vingt-quinze pour cent musulmans nga xam ne tey jii fe- marché yi fees na ay cadeau ñu ngi defaraat nit ñaa ngi jë- soo commencé tey jii ci banlieue bi ku fa dëkk pétard yi guddeeg bëccëg tëf tëf tëf kenn mënut a dégg li waa ji di wax ne ñàkk sa alal tiital sa baay
lu teg ginde waaw ñàkk sa alal ba pare tiital sa baay mooy pétard Euh, su ko defee loolu dafa jaadu ñu koy wax nag di ko wax ci kaw pour ñëpp dégg ko xam ne mbir mi mbirum diine la ñu am ci fulla waaw ñoom bu àjjuma jotee du ñu ànd ak ñun bu tabaski jotee du ñu sol ay yëre ànd ak ñun ci jàkka ja pourquoi nag pourquoi nag ñun yii bu amee ñun ñi ñooy jog di leen mooy ñu raw dàq Waaw.
roy dàq mooy xam nga daf ci am yu ciy profito dafa am ñoo xam ne lii moo leen arrangé mooy julli ñi bañal la dara bañ a leer ci ñoom julli ñi bara am bañ a am pas-pas bu baax jullit ñi bañ a dund alxuraan yaa ngi fàttaliku congrès bu mag bi amoon Angleterre ba ñuy wax naka la ñuy def ba dindi alxuraan ci àddina bi congrès ba dafa am koo xam ne dafa dañoo indi kaamil bi rek mu xottate ka- kaamil bi ci seen kanam daal ne wala jeex na xotti naa kaamil bi am na benn waa ji jóg ne ko yow yow membre bu dof nga yow membre bu kon nga xanaa xamoo alxuraan bi julli ñi dañ koo naan di ko doxantoo mu ngi ci seen dënn yi dañ koo mokkal téere bii li ñu bëgg mooy bu leen xotti feu yi waaye xotti leen ko ci seen dënn yi mooy nañ ko jàng te buñ ko dund loolu nga doon dégg ñu ne njiitu réew mi fi nekkoon nekk nasaraan biñ ko ne Sénégal 95 pour cent musulman lañ mu ne dinaa fexe ba ñu nekk ay mauvais musulman mooy ku gëm islam gëm nasaraan waaw gëm islam di feetu 24 décembre mooy mauvais mus- musulman ndax jullit bi nga xam ne mbir yi leer na ci moom naññ naññ naññ naññ dana jàng ne laa tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil axir yuwaaduna man haada allah ya ayuha alladina amanu la tattaxisu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim lil mawadda kon mbir yi leer na baat boobu sax la yàlla utilisé mooy mawadda mawadda te mawadda mi ngi koy utiliser ak encore ci diggante góor ak jigéen góor bu bëggee soxna bu ñu ko laajoon un million un milliard su ko yoree da ko ciy def ndax mawadda boobu wa jaala baynakum mawadda wa rahma warxama mawadda boobu wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawadda mawaddatan wa rahma xoola mawadda boobu yàlla di wax foofu moom la ñu tere fee amoo droit di ko def mawadda bi
tabarakallahu oustaz saar yi jeexul waaye waxtu yi ñu jagle loolu di jégaluwaat bu baax ndaxte daanaka am na 10 minutes yoo xam ne lekk nañ ko waaw loolu la yàlla dogal amaat retard boo xamante ni bi alhamdulilahi rabbil alamin waaye lépp loo xam ne jàll jalaala wa azza kamaala wa def na ko rek dafa rafet kon oustaz lan mooy Kaddu- sa dernière kàddu waaw suñu dernière kàddu mooy woote rek jullit yi ñu jógaat taxaw seen diine dëgëralatal seen pas-pas ba pare yeewu na xam ne fi mu nekk nii àddunaa ngi waaj a jeex parce que dajjaal a ngi ñëw yàlla ngi ci waaw mbaana preuve yi yonent bi wane woon yëpp ñëw na mu ngi feeñ alaamatu saa suxra dara desatu ci te ku gis àddina bi ni muy demee xam ne àddina bi day waaj a jeex ku ci nekk waaw léegi mi ngi daw daaw mu ngi daw te alir bu garaaw lay daw mi ngi daw bis bu nekk événement yi di ko wane Yàlla bu mu bés ci bés mbaaxal nag.
bés bu nekk nag mbir yi di gën a leer kon loolu soññaate sunu bopp soññu sunuy mbokki jullit ñu taxawaat xoolaat sunu diine Càmbar.
toppaat ci ginnaaw Seydina Muhammad daal di jël sunu diine nag matt ko ci sunu dëggat addu alayha bin nawajis loolu laay dénkaane di ko dénk sama bopp di ko dénk jullit yi di leen ñaanal yéen te nga xam ne yéen a ñu woo fi pour ñu jël sunu baag dugal ko ci teen bi ndax teen bi dafa xóot ndox mi dafa bari ku nekk ci jullit yi moo war a jël baagam dugal ci ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla dafa leen tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum barakatu salaam wa rahmatullah oustaz Saïd li ñu ngi lay gërëm jazakumullahu khairan.
jaajëfal ñu ngi lay Barakallah.
ñaanal yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu barkeel sa dund amiin yaa sa rabbal xam-xam amiin amiin te amiin defal la lu koy sa njott ci Amiin.
liggéeyu lislaam bi nga nekk Amiin.
di ñaan ñun ñi nga xam ne ñoo àndoon ak télé bi téléspectateurs yi fépp fu ñu mën a nekk ñu xam ne wax jaa ngi nii li ñu war mooy ñu fexe yeete li ñu war mooy ñu jéem a orienté waat suñu njaboot ñu mel ni ñu war a mel mooy képp ku leen gis rek gis jikkoy julli ci ñoom te ñu am fulla ni ñeneen ñi amee fulla wala nu ko raw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn gënu ko woon yaatu dënd waaye lépp lu jëm ci wàllu pas-pas koo mën a doon dalay gàddaay nga nekk ndey nga nekk baay nga nekk koo mën a doon ci tur buñ la mën a tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay ànd ak yàlla ndax ànd ak yàlla moom mi la sàkk bi dara amutoon defal la ay bët defal la ay nopp defal la xol yooyu yëpp mu defal la ko laajal lenn lu dul mooy nga jël sa xol nga jox ko ko sa cër yooyu nga mokkal ko rumbux di ci sujjuud di ci rukoo di jàllal say loxo naan ko rabbana loolu dong dong dong la yàlla soxla ci ñun kon yàlla na yàlla delloo jullit ñi seen teraanga te seen teraanga du leen ni ñu am al ixlaas am al fahmu saxiix te mënuñu ko am lu dul ne dañuy tegaat suñu ay gët yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy daj dëpp gi képp ku ñu topp tey topp gi ñu ko topp moo tax ñu topp la xalaas bés boo ko noppee topp ñu jéggi la utiwaat ñeneen ñoo xamante ni bii ñu ngi topp fattabix sabila man anaaba ilayya yoon woowu nga xam ne moo jëm fële ca aljana muy asiraatal mustaqim te oustaz fàttali ñu ko démb ne jullit loolu rek la war a yittewoo kon incha allah ñu ngi ñaan yàlla mu yombalal ñu ci di ñaan yàlla mu defal ñu tawfeex ak taysiir ba beneen ñu toogaat ak yéen ak yeneen invité wala yeneen kàngam yoo xam ne incha allah dinañ ànd ak ñoom ci seen émission teggin ñaan yàlla mu defal ñu teggin fii teggin ñu fële ndax moo ci gën ndax tegginay tax ñuy teral doomi aadama bi yàlla nañu ko yàlla defal defal ko mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jazakumullahu khairan.
maa ngi jégalu ah ma ne maa ngi jégalu. jazakumullahu khairan.
yàlla yàlla fay yiw amiin amiin amiin amiin amiin amiin am Cheikh baal ma ci am sëñ Mor sëñ Mor waaye sax ñu war a ndax
jërëjëf jërëjëf barakallahu fiikum yal nañu yàlla boole tiyaaba yi amiin amiin amiin amiin amiin amiin la vidéo yi nekk ah
mu lancé woon nga koy naa soo nit ki ah. ku génne.
waaw loolu dama lay dama lay lancé.
voilà dinaa ko lancé di nga ko jox.
ok ok incha allah jërëjëf bopp yal na yàlla fay leen yi jërëjëf ñoo ngi toxal jëmm yi jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum baax na jërëjëf aywa jërëjëf jërëjëf yow sonn naa la taksan jot asalaamaaleykum asalaamaaleykum الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. نيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر